auzu billaahi mina seytaan rajim bismillaahi rahmaani rahim alhamdulillaahi rabbil aalamiin ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonanteem salallaahu alayhi wa sallam sant suñu ñaari waajur sant Cheikh Ahmed Bamba Xaadimu Mustafaa jërëjëf sëñ Tuubaa jaarama maam Cheikh Ibrahima Fall Lampa Baab muy diina salaamaaleykum mbokki Waarwi TV waaru Cheikh Ahmed Bamba Xaadimu Mustafaa xam ne tey jii la màggalu sëriñ Moodu Mustafaa Fadilu muy Cheikh doomi Cheikh Amadou Fadal waaye sëriñ Maam Mor Mbàkke mu sëriñ Mustafaa mu sëñ Fallou euh, moo koy màggal fii ci Allier kon ñi ngi ziar mboolem njabootu suñ Mouhamadou Fadul yëpp di ñaana suñ Muntaxa suñ borom yàggal ko fi lool ànd ak wér waaye ñu ngi ñaan bu baax a baax mboolem njaboot Cheikh Amadou Fadal suñ Abo Mbacke mi nga xam ne mooy euh, xalifa Cheikh Amadou Fadal ñaanal ko suñ boroom guddal fanam te wér ay cëram waaye noonu leen koy ñaanale sëriñ ji li mi nga xam ne mooy xalifa sëriñ Mourou Moustapha Fadilou Euh, ñu ngi koy ñaanal suñu borom guddal fanam wala ci waaye nag borom penc mi wala borom ëtt bi di sëriñ Mamour Mbacke moom sëriñ Moustapha moom sëriñ Fallou ñu ngi koy ñaanal suñu borom guddal fanam wala ci rëm si suba ba léegi nag ñu ngi ciy jàng njàngum alxuraan xasida ak salaatu ala nabi mbokk yi ak doomi soxna yi ak taalibe yi ak doomi taalibe yi ñoom ñëpp ñu ngi ñëw fii ci kër sëñ euh, Mamour Mbacke mu sëñ mu sëñ Moussa Fadilu euh, dafi def ay ziar waaye nag daayira yi nga xam ne ñoo sopp sëriñ Mamour Mbacke mu sëñ mu sëñ Moussa Fadilu ñoom tamit ñu ngi ñëw def seen ziar xam nga mbas mi moo tax euh, lii lépp deme nii waaye nag Euh, avant mbas mi tamit euh, après mbas mi tamit euh, macha allah màggat gi da daan kumbaloor waaye nag respecté bu baax a baax mesure barrière yi nga xam ne Serigne Touba Serigne Mountakha Mbacké yow digle na ko moo tax ñu ñu jëf jëfandikoo li nga xam mooy ndigal di ñaan bu baax rek Serigne Mame Mor Mbacké mii. sëriñ Moustapha Fadilou mu yàgg bi lool ànd ku wér ñu ngi koy jaar bu baax a baax ci bis bi di ko ndokkeel baax a baax mboolem njabootu sëñ Moustapha euh, Mbacke mu sëñ Fallou xam nga sëñ Modou Moustapha mu sëñ Fallou sëñ Modou Moustapha Mbacke lañ ko kon nag euh, li nga xam ne mooy tam xarit euh, dañ ciy màggal ki nga xam ne mu sëñ Moustapha mu sëñ Fallou waaye dañ ciy nga xam ne mooy turandoo bu mag wa sëñ Modou Moustapha Mbacke kon nag bis nii Eh, ci ci njàngu alxuraan lan ko lan ko doore waaye ci njàngu alxuraan tamit lan ko jeexale sëriñ Moustapha Fadilou eh, li nga xam ne bëggoon na ko bëggoon na bende lool waaye bëggoon na nit lool waaye na bëggoon na taalibeem bëggoon na njabootu Cheikh Ahmed Bamba Khadimou Moustapha waaye ñi nga xam ne tamit euh, ci ñoom la ñu yaakaar muy muy waa kër Cheikh Amadou Fadal di ñaan rek suñu borom defal ñu jàmm tawfeex kon nag sëñ Sana la feggoo si wàllu caméra bi ak feggoo tamit Serigne Bassirou Sylla euh, suñu DG ñu ngi koy ñaanal tawfeex ak tey ak mboolem équipe Waarwi TV kon nag ci kanam tuuti incha allah rabi di ngeen gi gis ambiance yi waaye nag dingeen ngeen gis eh, li nga xam ne mooy kilifa yi nga xam ne ñoo ñëw ci bis bu tedd bi eh, di di le seen kóllëre eh, seen seen digganteeg Serigne Mamor waaye di le seen seen kóllëre Euh, seen digganteeg Serigne Modou Moustapha Fadilou mi nga xam ne euh, moo doonoon doomi Cheikh Amadou Fadil la euh, Cheikh Amadou Fadil Serigne Touba kon nag kii mooy Serigne Modou Moustapha Fadilou ñun ñëw ci kër doomam nag muy Serigne Mamour Mbacké mu sëñ Moustapha mu sëñ Fallou Mbacké mu Cheikh Khadim si kanam tu dina dugg si biir feggoog ay kilifa yu mag yoo xam ni dinañ mën a wax nag si bis bi incha allah

والبين والسماء كل ولي قد جاد بالنماء بارك لي في الحركات والسكون رب الذي خلق لي كن فيكون بارك لي في الحركات والسكون رب الذي خلق لي

إذا